indil leen li gën a fës xibaaru làmb Mbaye Babacar soo fay rek daal di àndandoo jukkil leen li gën a fës Mbaye nuyu naa la. jërëjëf Ajaratu Ndeye Mbacke Diop maa ngi lay fay du nuyu suñu xarit yëpp yi nga xamante ne bii jamono bii ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV di lay ñaanal jàmm ak salaam wante di ko sàkko ci ñoom saa su ne. revue bi nag huile Jador moo leen koy may ak gàmmam bu complet boobu au Kayar ndox bi ñuy aar moo ci ànd ak ñun ca noonu mercredi 9 juin 2021 journal suñu la moom xëyee ci xëtam mu njëkk Bombardier prévient Eumeu Sène la mu koy xamal nag mooy digganteem ak Pikine histoire bu yàgg la fa Mbaye Babacar la tax mu wax ko loolu mooy que Bombardier dugg na pikin duggaat pikin bëri na fa ak ki nga xamante ne bii mooy Mohamed Ndao Tyson bëre na fa ak ki nga xamante ne bii tamit moom mooy Tyson euh, Junior bëre na fa ak ay champion yu bëree bari nee na ko sama diggante ak waa Pikine histoire bu yàgg la ba nga xamante ne bii du yomb ba tax na ma koy artu ma ngi koy avertir na ko sama combat ak yow incha allah jàppal ne combat bu nar a la ndax combat bu njëkk ba na mu deme woon man li ma préparer woon yépp bi ma ñëwee jotuma koo def sax ndax combat bi dafa gaaw finalement dañu jàppante rek jël am mais bii yoon moom incha allah jàppal ne du mës a demee noonu ca loolu nag ginnaaw face to face ba amante 2STV Sa Thiès mu ngi persister la muy wax nag mooy day dëggal boppam moom combat am duggee ci enceinte bi du xalaat li xelam joxe rek loolu lay def daal di koy bëri daan set ko rek mu daal di ñibbi. suñu làmb samp ab laaj jëmale ko ci Sa ne ko lan moo tax nga jël Moussa mu ne sama diggante ak Moussa Ndoye nekkuloon combat bi gënoon a taxaw sama digg sama sama sama carrière sax mais finalement moom laa mujj am comme adversaire moom laa nar a bëreel suñu làmb yemul foofu laaj ko est-ce que xam nga Moussa mu ne xam naa ko bu baax xam naa ay fooram xam naa ay faiblesse am wante Sa Thiès lam ca teg mooy ni ma doon bëree démb ak barki démb. du ma ci changer dara duma ci soppi dara noonu laay continuer bëree arbitre bu soufflé sama adversaire lu yëngu ci kawam rek na jàpp ne man la. te loolu nag ginnaaw Père Max Mbargane ba mu waxee Mari Thiandoum àddu ci kii di Diène Kaïré nag booy Kaïré sax laa wax ba koy Diène xëy di wax ci choc bi nar a am le 19 di def Franc ak Tyson 2 lam ci xam ne nag mooy Franc moo am appui yëpp pour daan bay baax. mu ne Franc moom mooy favori ci boobu les combats booy Kaïré papa yi Diène mooy moo yooyu la kàddu ndax nee na Franc mbër la ma nga xamante ne bii. dugg na ci bëre simple bi wane ci boppam te bëre pire lay def mbër moom nga xamante ne bii champion la ñu naan ko franc mi ngi noonu euh, ba pare nee na Tyson tamit macha allah ndaanaan la mën naa bëre mën naa xeex kon daal incha allah combat boobu noonu na ñoo gis combat bu neex diggante Tyson 2 ak franc. beneen combat ba nar a neex fecca Gambia ba journal suñu lam daal ci xëy di ci àddu lam ci xam ne nag mooy combat bi dox ci diggante ki nga xam te ne mooy France ak Leket Bara te di koy taxawal dimanche lay jam production moom mooy boosu euh, jam production moo taxawal boobu le combat nar a am foofu lee ca Gambie incha allah le 13 juin euh, promoteur bi nga xamante ne bii sénégambien la ndax comme ni nga ko xamee yaayam gambien la mais papaam moom mooy sénégalais muy sénégambien euh, di ka nga xamante ne bii nag xele la wante mi ngi marqué. ay empreinte ci ci ci làmb ji ndax mi ngi taxawal ay combat fële ca Gambie wante mi ngi taxawal ay combat fii ci Sénégal France Leket Baara bu ñu ko waxee fële ca Gambie nag mu ngi mel ni Modou Lo Ama Baldé fii ci Sénégal nar a nekk combat de feu combat ba nga xamante ne bii Gambien yi foo romb moom la ñuy waxtaanee. beneen combat bañ bëgg mu taxaw nag ginnaaw ba soq daal di daan génn daal di fëgg dënam kii di mbokkam jibi joolaa lam cee xam ne da ngay ne lañ bëgg di jéem kayre moom mooy agent soq. Jibi Joolaa moo yëkkati yooyu la kaddu ci journal bi nee na gannaaw ba soq teglee ñaari victoire daan daan di faal daan gàmmu Gueye nee na ki nekk ci kanamam fi mu toll nii du kenn ka nga xamante ne bii ku dul Diène Kairé moom rek lañu bëgg a jàkkaarloo ndax seen yaram Diène Kairé lay laaj. ca noonu nag ginnaaw lu ñu seetlu sax la ñuy wax fan yi face to face yi am la koy yàq nag mooy ay jàmmaar looy nekk ak violence la journal bi xëy di samplaat nag mooy ndax suñu champion yi jotul ñu civilisé wu Mbaye Babacar. Ibrahima Mbaye moo yooyu la kaddu. Ibrahima Mbaye nag nekk ku ñu ràññee ci wàllu làmb nekkatul ku ñuy présenté ci làmb ji ndax xam-xamam màcc na ci wàllu làmb ba pare coach la nee na gannaaw ba ñu toogee ak coronavirus jaar fii kenn bëréwul ñu reprendre at làmb ji nag promoteur yi di ficelé ay combat mbër yi commencé di bëri nee na image bi ñu gis barki démb fële ca cosaan nekkul image ba nga xamante ni bii la làmb bokk na ci image u làmb rafetul ci image u làmb te nee na moom mi ngi koy ñaawlu bu baax a baax. ko bëgg a rafetal image yu làmb nag daal di génnee budget bu am doole muy suñu papa Gaston Mbengue le Don King de la Sénégal daf xam ne nag mooy combat yi mu taxawal yëpp dépassé na 2 milliards Mbaye Babacar. li tax mu wax loolu Gaston Mbengue dafa yàgg ci làmb te it dafa xam làmb mën làmb nee na promoteur mën ngaa yor benn cent millions. mën ngaa yor benn 200 millions taxawal ci lu tolloog cinq com 5 grands combats wala 6 grands combats ndax mbër mi mën nga koo ñamal 10 million kee nga ñamal ko 15 million kële nga ñamal ko 10 euh, 10 millions moom tamit mais boo boo boolee lépp au finish combat yépp boo ko taxawalee ñu bëree ba pare dina la taxaw li nga xamante ne bii maanaam moom mooy. deux milliards maanaam combat mi taxaw yëpp nee na bu ko bu ñoom ñëpp bu ñu baree ba pare dina dina ko taxaw li nga xamante ne bii moom mooy deux milliards mais nekkul ne deux milliards yi dafa nekk ci poosam mu génnee ko jox ko mbër yi comme par exemple mën na boole Mansour ak Bilal jox kii deux deux millions jox kii deux millions ñu bëree ba pare lu mu ci jëlee dugalaat ko ci beneen combat bi foofu lay waxee mu nekk combat yi nga xamante ne bii eh, dépense bi continuité lay doon mu nekk nga xamante ne bii ku am expérience expérience la ci wàllu làmb na mboota xam lu ca géej ga. moom mooy nuur. ba ca ban ca biir ban ba. ca noonu nag beneen face to face bu tàng jërës ni ñuy programmer journée bu neex la vingt 27 juin bi ñu jëm diggante assurance bu bu Thiès ak Gambien Mbaye Babacar. war a jàkkaarloo la le 27 juin si Sidi Diakhaté euh, promoteur bi dëkk fële ca Thiès benn dëkk ñaari gaar moo taxawal euh, boobu le combat wante. Eh, narul yem foofu kese ndax yeneen juróom-ñetti combat dana fa am muy ay combat préliminaire ya nga xamante ne bii macha allah foofu lay amee ci Mbour géej stade municipal bu Mbour di Jaxate taxawal yooyu la combat ku fa dem incha allah da nga da nga gis bëre pire. te noonu nag ginnaaw bañ séddee place ba le 8 août jox ko Pape Thialis Faye Fallou Ndiaye nag ko séddee place bi. Mbaye Babacar mooy Alioune Gueye moo ko may data bi nga xam te ne moom la jàppoon la set fee ci Iba Mar daal di koy ko sant te ko gërëm Mbaye gannaaw ba Mor Mbaye ngéwél gi production jëlee datam jox ko Pape Thialis ki nga xamante ne bii moom mooy Aliou Gueye tamit jël na datam jox ko ki nga xamante ne bii moom mooy Fallou Ndiaye borom Ndiaye production mu fas yéene ci mu fas yéene nekk le 7 août au lieu le huit bi mu jàppoon mu naroon a daje combat Tapha ak Boy Niang mais léegi combat am xëcc na ko ba léegi la 7 août incha allah bu ci yàlla àndee kon le 7 août date booba date ab. Fallou Ndiaye jeex na. ca noonu nag ginnaaw show man ma di sos borom dóor-dóoraat ñeex ñeexaat caf cafaat ba mu inter interduré fekk nga xam ne mooy dégestive bi daal di fay def show bu am solo sos na ñu koy xaar ngir mu dellu si ci arène bi Mbaye Babacar. mu mel ni dafa defal surprise promoteur bi ak waa 2STV ndax. mën nañu wax ne bokkul woon ci planning bi sax dafa jekki rek ñëw na jumet ñëw def fa ambiance bu am doole bëgg a li nga xamante ne bii mooy retour am nag ci làmb ji nee na kuñ ko jox rek pare na pour affronter ak moom. ca noonu nag dañuy dem ba journal record lañ cey xam ne nag mooy Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye tey waxati na prédiction ba mu def maanaam kii di tefaat Tapha Tine ak Boy Niang numéro 2 bu ci Boy Niang lañ ci du bëri Balla Gaye ndax Balla Gaye vainqueur rek léegi dajee may Babacar. Aziz Ndiaye mooy yëkkati yooyu les cadeaux. nee na Balla Gaye du bëre ak mbër mu daanu mbër mu daan rek lay bëree kon mën nañ jàpp ne Balla Gaye mu ngi ci ñeenti contrat digganteem ak ki nga xam ne moom mooy Bombardier Boy Niang Eumeu seen ak Gris Bordeaux mais Aziz Ndiaye mi nga xamante ne bii moom mooy agent nee na Balla Gaye lu mën di xew ak lu mën di am mbër mu daan rek lay bëreel waaw loolu leer nañ ca noonu nag face to face ba Balla Gaye numéro 2 ba mu nekkee France sax taxawul xam moom bi lebalu ko kenn moom fu mu nekk la ko wax tension ba nag na ñaari mbër yooyu Balla Gaye di ko xamal ko bis boo taxawee da ngay xeex dinaa la dóor ba nga tëddal sa bopp waaye da ngay bëri nag bëri pur daan ndax yow jàppoo fenn ci mystique la yaakaar pour daan ma te man mystique daanu ma Mbaye Babacar nee na ko Bombardier nee ko su fekkee mystique kese nga yaakaar dooma daan Bombardier nag mbër la ma nga xamante ne bi moo mujjee daan Balla Gaye Euh, jël li nga xamante ne bii moom mooy couronne bi ci moom ba léegi nag loolu dafa des ci boppu Balla Gaye ba tax na mu dem fa la ci INSEP yokki doole wuti doole ndax Bombardier képp ku fa yéene jàkkaarlook moom loo am ci doole doyul ba tax na loolu la Bombardier xam loolu la Balla Gaye xam wuti doole mais Bombardier nee na ko fa ma la jaarale woon démb ak barki démb la ma la mënee woon démb ak barki démb ba léegi noonu laa la mëne su ma la jàppee dinaa la duma dinaa la daan làmb ji wax kese nga ci am. daal ko ci tegal na ko li ngeen ni show la rek da nax say fans waaye gëmoo li ngeen da li may wax li bi ci kër gi da ngay cuubu di jes neeru da ngay cuubu di jes neeru mu ngi noonu na damay kontaan ci moom bu baax loolu moo nekkoon li gën a fas ci xibaaru làmb ba mbay looy tàggatoo xanaa jaajëfal ñëpp dig leen daje incha allah suba ak jàmm wante démb dañoo amoon anniversaire tey ñu amaat anniversaire waaw kër gi dañoo mën a anniversaire nag <laughs> démb Bilal Ndiaye la woon macha allah tey Kébé jaxarala la kër borom Kër Massar ñu koy souhaiter un joyeux anniversaire longue vie santé prospérité nit ku baax la nit la ka nga xamante ne bii wax dëgg yàlla moom moom làmmiñam yaatu na bëgg na ñëpp ñu koy ñaanal anniversaire bi mu feete ko at yu bare bare bare bare mais nag li ma koy wax rek mooy mu gaawantu takk soxna ndax jot na ci moom te temps bi du ko xaar <laughs> Kéwé dégg nga. waaw yóbbante ba mu koy yóbbante la moom kay. <laughs> Kéwé damaa bëgg am njëkkee wàllu tur yoon na ma xew. xëy na comprendre dama koy naan happy birthday rek Kébé kontaan ci moom loolu nit ku baax mu ñëw rek yaatal ñëpp yaatu yaatule ñëw bëgg ñëpp daa ñëw rek bokk Kébé premier jour la ñëw indi jàmm. Mhm. xaalisam yaa ko bàyyi ci loxoom. Mhm. lu waay bëgg moom mu ngi ci kaw ba suuf loo bëgg mu defal la ko Kébé dundal dundal dundal ba sa mayu di baawal li nga bëgg sa xol yàlla na la ko yàlla defal ah. cat seexlu la yaa ma gën a xam yàlla boole ñun ñëpp tàbbi xol yi léewtoo nekk benn léewtoo comme nañ mel ni benn bopp sumbandoo yëkkateendoo dóorandoo ndax fii ñoo ko moom bu léewtoo jëmee kanam ñun ñëpp kanam lañ jën noonu laay def daal di tàggatoo ak di sant di gërëm sama caméra bu mën bi faama bég ci moom Bilal Mansour Fall mañ pour ah kontaan ci yow borom shooting yi Bamba moom papa ah sama conseil damay kontaan ci yow lool lool lool borom kër yi Pape Thialé Say Aïda Mato maa ngi di bëggee bu baax a Adja Nafi Ndiaye kontaan naa ci yow bu baax a baax a baax sant gërëm sama chauffeur moom moo maa ne 100% assurant bëgg naa ci yow jox leen dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV jaajo ñoom ñaar jéggi na junior wàcc na jël na tafaatin dóor na tafaatin a ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy Niang daan na